Sénégal daal di soobu woon ci benn processus ngir daal di réformer li nga xam ne moo di budget yi depuis 2020 daal di teg benn programme boo xam ne dañuy caytu li nga xam ni moo di budget yi. ci loolee Cour des comptes mi nga xam ne dafa nekk benn actrice bu contrôler loolu moo ngi xamle ni programme boobu ñu concrétiser woon 2021 am na ay jafe-jafe yu ci nekk. en xool nañu am na ay jafe-jafe maa ngi la doon wax léegi ci français mënoo jël benn euh, indicateur benn nattukaay. te doo wax yow lan mooy sa point de départ situation de li ñuy wax en France situation de référence après nga nañu par exemple su si fii ak ñaari at wala fii ñett at lan laa war a am comme résultat loolu gis nañ ne ay jafe-jafe la si mbir ministère yi. ci benn atelier de partage bu ñu amaloon Cour des comptes moo ngi li ni. moo ngi wëyal ci benn audit d'attestation de performance. nous avons depuis tàmbali nañ ay at a ngi nii ay mission yu soxal audit attestation de performance yi liñ ci jublu nag mooy fexe ba joxe ay xalaat ci rapport de performance yi nga xam ne ministères yi ñoom ñoo koy produire. les ministères ci loolu Thierno sa Dia moo ngi xamle benn soppeeku de paradigme ci budget wu état bi nga xam ni assemblée nationale nañ koy voté ci ministère de tutelle bi ni mu ko bëggee. moo léegi tey sénégalais yi boo leen waxee ne xaalis bi ah ministère bi jox nañ ko tant de milliards mais sénégalais bi li ko intéressé mooy lan la jur lan mooy résultat bi sénégalais bi loolu moom moo ko intéressé boo ne param tey yëkkati naa tant jox ministère de la santé sénégalais bi dañu ne est que man loolu man ma mën a dem ji benn atelier boo xam ne dañuy partager ay expérience loi bi dal di permettre li nga xam ni moo di Cour des comptes joxe xalaatam ci rapport annuel de performance yi waaye tamit mu dal di vérifier programme budget yi ndax askan wi dinañ ci jis seen bopp ci ni mu waree